tey comme ni ñu leen ñu ngi fii si AIRTOUR Avenue di second edition of the Semester Avenue ñu waxee nag nag soo leen ko déggee dañoo pour welcome suñ semester yi ñi nga xamante ne tukki comme ni ko doon suma naataango seen réew dem nag am jom lool ñu ne tukki nag jom la waaye ñu ngi tamit si fula la bokk parce que semestre yi nit nañ pour ñu delloo leen njukkal nit nañ pour ñu sant leen parce que fii soo ko seetee si Gambie ba fii kër yu bëree bëree bëri bëri ah gars yi ñoo ko amee ñu ñoo ooyee Moodu Moodu yi ñu ñoo ooyee semestre yi ñoo ko amee ñun nag comme que Barrow di président of the Gambia moo ne weer bi nii commencé ko on the 15 of December on the 15 of January mu ko jagleel semestre yi am ñu def ko diaspora moom why not ñun Gambian talent ñu nit ñu ne nañ delloo. semestre yi njukkal ñëw def ak ñoom lu baax tontu leen si aéroport bi fii nii fekk si leen fii welcome leen wan leen ñëw nañ seen cër ñëw nañ ci place bi ñëw war ñëw tamit ñëw waxtaan ak ñoom suñ fa jógee dinañ fekk semestre bu nekk suñu jotam na dem dinañ leen fekk seen kër yi waxtaan ak ñoom def ak ñoom yu baax ànd ak suñ ay ambiance ak yu sew ak sew ba léegi rek ñu ngi fii si aéroport bi gis ngeen ñi ngi ñëw gunge si seen nit pour ñii ngi ñëw jël seen nit am na ñoo xamante ne dañ gëj a gisante comme ni ñu ko waxee woon jama dafa sonal woon ñu bëri ñu ñu ñu leen nañ ñëw rek ànd seen waa kër ak everybody ñu welcome leen nga ñoom yu baax ba léegi rek am caméraman mun ngaa kontaan am xool rek gis nga nit yi fii ñun ci airport bi fii nii Едет, едет, едет. gambien bi li nga jëkk a gis mooy ay buñam euh, loolu mooy firndeel la ne gambien bi dafa laa biir gambien bi dafa baax euh, te loolu mooy li am loolu mooy li wér euh, ba tax na nu ma ne ko waxee ba léegi ñu ngi fii si Banjul International Airport si seen programme bi Semester Avenue muy jógee ko si Gambia di mën a bàyyi xel si àddina si bi ñu ko joxee nga xam ne ñu ngi jógee ci suñu ne si ñoom géej nañ fi su ko defee euh, ñu ngi fi euh, nekk ak ñoo xam ne tamit euh, ñu ngi fi pour rek daal di tàccu wala dalal welcome bu baax a baax seen ay mbokk yi nga xam ne géej leen ñoo gis te tamit bu yàgg dinañ daal di waxtaan ak ñenn ñoo xam ne. 种种这种，就是像的那个waaye ni ma ko waxee li nga xam daal moo di weeru décembre semestre yi dañ lay ñëw bu baax a baax. waaw comme ni ma leen ko waxee rek mbokk yi ba léegi ñu ngi fi si dama tas avenue lañ woon ñii dinañ jël si seen cousin ñii seen oncle ñii seen brother ñii seen sister am ñu fi nag si airport ba léegi dinañ waxtaan ak ñi nga xam balaa semestre yi génn ah ñun tamit ñun ñu wax naa leen ne ñun tas tey ñun semestre la waaw parce que ñun fii ñu nag soo ko déggee am dañ ko jagleel Sénégal tey suñu brothers ak suñu sisters yeeg suñu oncle yeeg suñu maam yi nga xamante ne dañ yaakaar tukki nag nekk Europe di fa def nice a nice nga yónnee yow mii xam nga ngay cil xam nga ñu war a ñëw rek yaa ngay gis am welcome leen fii nii ñun nag ñu ne am nañ si cër ñun tam xam nga moom bi nii décembre bii nii baroo sax daf ko jagleel Sénégal yi ñu ne diaspora moom Sénégal yi nañ ñu def lu leen neex ñu ne ñu ne waay lot

lan a waraloon mu dem Yaya Jammeh ko daa xee wala naka la aw Yaya Jammeh moo ko daa xee so kon loolu dina ne gisee boobu dina ne naka préparation bi si kër gi loolu lañ préparé and Because seven years, that's a lot of things. That's a lot of that's a lot, of right? how do you feel? Nothing I feel. So how I get feel? Um, the 2007, what are you? I'm very excited because I'm at this time. I'm, want to see a dad and all that stuff, but mostly excited and eager to see how, how he has been doing. kon Sadat maa waaw soo moom su ñëwee sax dina xamee seen yoon ak foog na loolu moo tax nga jël ci ko <laughs> ok waaw yóbbu ko kenn rek ngeen dalal ko defal ay ganaar baax ok jërëjëf ambootay dégg ngeen loolu suma produit bu baax boobu mu wax daw na yeneen depuis 2007 Yaya Jammeh daf ñu bari mu ñu ñu kan Gambie bi ñu bari gisante ñu seen papa yi ya? everybody depuis 2007 loolu lu baree bari la te nekkul moom kese am ñu baree baree baree bari la mbokk yi lii moo ñu indi sa message fa ñu dugg si nit di waxtaan ak ñoom suñ waxtaanee ak ñoom rek di ngeen di ngeen gis ñu am ne dañ fi géej te nit nañ pour ñëwaat nañ ñëpp si Gambia bi ñu fa ko bokk kenn moom ko kenn fu leen paree ñëw ñëw leen Gambia is nice fu mu nekk yaa ngi bëri nit yaa ngi xappi wàllu sakan si dëkk bi ñeneen ak ñeneen ñu si dëkk bi skate la ngi léegi léegi nii lañ tasee moom ñu si dëkk bi mu nekk lu nice Christmas bu du yomba soo sama tay ñëw leen ñeneen ñi xam naa ne yeneen i ba waaye man moom dama fële laa sikk ma ko woon dëkk parce que soo woon dama bëgg a jóg fu mu nekk nii waaye daal naka nii dëkk baa ngi jax foo wax mu ne xaaral ma xool sama bureau da bi ma xool sama sista bi fële ah loolu ne waaw gars seen liggéey moom rafet na torop semestre ñu ngeen tray bu baax moom mm-hmm. fana naa Gambia moom nearly three quarter of Gambia kër boo dugga am na kenn benn oo ñaari yëpp bu ci dugg so mm-hmm. gars ñu ngee jàppale dëkk bi ñu ngee jàppale seen famille yi so gars seen liggéey rafet na torop ñu ngi leen a leen yàlla daal yaram yàlla gën a yokk seen liggéey buñ nekk di tey amiin ya am loolu neex na mbokk yi ko gis nii dañ xam fu mu gaay Ibrahima ma suma Ibrahima rek ah moom mu jël ñeneen rek waxtaan ak gaay rek gaaj leen naka leen fiir ah bu ko defee Ibrahima waxal ak gaay euh, euh, thank you very much Ramatoulaye السن children parents we are here from the international and uh, this program is called um, semesters avenue dedicated to uh, our you know, wonderful uh, people coming from the diaspora uh, to welcome them to ask them um, what we are doing at uh, the, di the diaspora and uh, uh, other, other, other, other important questions that we uh, will be asked. I'm here with my colleague Ramatulai. Uh, again, we are here to, we are, we are actually waiting uh, for a flight that uh, uh, was set to 7 p.m. here at the Bandung International Airport. We are yet uh, to uh, receive uh, the flight. mbokk um, ni ma leen ko waxee rek ba léegi ñu fii si Banjul International Airport fii Bindum si seen programme yi di li nga xam ne moo di Semesters Avenue mu di programme boo xam ne dañ ko jagleel suñu rek li nga xam ne moo di um, mbokk yi nga xam ne ñu ngi woon tugal nga xam ne dañ demoon daani woon seen doole nga xam ne su weer bi jotee ñu bëri si ñoom dañ dee ñëw. bokk ak li nga xam ne mooy bés ñoo dëgmal si muy Christmas ak li nga xam ne mooy New Year si si ma nañ fi ay ati at lu ëpp fukki ñenn si ñoom nag du ñàkk li nga xam ne moo di weer bu nekk wala wala wala ñetti weer yu nekk ñu ñu ñëw euh, nemmeeku li ne na ba léegi euh, ñu ngi fii euh, pour leen welcome leen bu baax a bi du fii rek dinañ leen ko di fekk ji ñoom seen li nga xam ne mooy dëkkuwaay si naa leen am na ay laaj yu bëree bëri yoo xam ne war nañ koo waxtaan ak ñoom. ñi nga xam ne ñoo di semence tey ñëppoon tugal xam li fa nekk nee naa leen lim saf di ko mocca koo xam ba tax na daal ñenn si ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi fii si biir réewu Gambie mu di ay ndaw niñ dee xelaatee wala niñ dee foogee ne tugal noonu la mel dafa doon loo xam ne semestre yi mën nañu si ay bokk daal leeral ba tax na daal loolu nag dina bokk si ay waxtaan yoo xam ne dinañ ko guddi am ak ñoom di leen ko laaj ñu wax ñu seen eh, xalaat si suñu ay ndaw yoo xam ne dañ dee faral di jëfandikoo yoonu gannaaw pour rek utal yi li nga xam daal moo di dugal eh, eh, ba léegi rek ni ma ko waxee ñu ngi fii si Banjul International Airport seen programme bi di rek Semesters Avenue dinañ rek waxtaan ak ñenn si ñoo xam ne dañ ñëw pour rek welcome yenn jafe-jafe nag lañ dee faral di am ak ñu bëri bu ñu dee ñemee li nga xam ne mooy caméra ñu bëri bu ñu dee bëgg wax si mic loolu daal jafe-jafe la waaye dinañ nga xam tey ñoom su ko defee rek ñuy waxtaan ak ñoom su ko defee rek ñu wax ñu waxal ñu wax ñoom xanaa la nga la nga leen indi fii si département international su ko defee ñu ngi fi taxawaat indi ko si kanam benn borom xaftaan borom benn borom xaftaan rafet واجب يكون نعم حبيت لما فيك في سي بعد sa système moom ban dëkkal la moo jógee Suède moom kañ fi gëj seven years back la fi gëj euh, naka nga lan nga fiil euh, pour war koo euh, gis nga mun nga ñëw wàll lan lan nga yëg fi mu nekk Nenda fanika jikira mda. No, mwake mwaka nika. Kwa karibu ya laifek ni jikira mda. ko si kër gi jaaxal na sa doom bi nga ñëw mën na ko ok ok dafa mel ni kër gi kenn xamu ko daf leen bëgg a surprise daal. dafa mel ni kon yow waayam dëgg nga de. loolu yëpp ma ko yoree wax. seen yi naxaw. dëgg la incha allah jërëjëf. waa ji wax jërëjëf waay. jërëjëf ak ki bëri waay jaa ñu jaajëfal si rek taay ma mu jël na ko rek wax ñu wax ñu ne xaar teertu ki nga xam ne moo di. système boo xam ne euh, mu war a jógee ko Sweden géej fi seven years back euh, muy soo mu ñëw wax ne sax euh, système bi dafa bëgg a surprise famille bi famille bi sa yëguñ ko moom rek a ko yëg si rek jamono ji te loolu lu baax la su ko su ko gisee mu bettaleen loolu loolu beneen la mu fi su ko defee rek dinañ dinañ ko jaajëfal bu wax a baax si rek liñ jëlee tay moom boo xam ne su ko defee rek mbokk mu baax nga wax ñu sa oke, oke, oke, Oke, mooy Oke, oke. ñu ke ko pun. kon ñu ke PC. bis yi Banjul International Airport lanay woon sa tënk dan nga jël si Oke, oke. la Oke, sa Oke. la oke. ban ban ban réew la moo ban

Gambian Talents Radio a ngi laa seetaan di la déglu si jamono ji nga wax ñu sa tur yow. aji ami bet. aji ami betis. aji ami ami bet. waaw yow ñu ngi la fekk fii si Banjul International Airport lan woon sa tànk. sama benn doom moom réewu jaamani la moo jóge. moom réewu waaw. dégg ngeen ko mu ne ñaar fukki at la fi ah, bi géej sa bu góor la na bu jigéen ak dee dem bu ñuul am na kayit léegi léegi mu ngi dem bu ñuul ok ok ma ñabara ma ànd ñu teel a bi war a ñibbi bi war a jóge ko réewu jaamal ci naa kontaan rek léegi sa doom ngay di ko mhm. gis ah ñaan yàlla bu ànd ak amina ak mu génn ma war a gis ak jéego damaa bëgg ma kontaan kontaan te bu wér moom laa am mboolem ñi moo àndal yëpp dama kontaan si moom yëpp bu ñëwee gis sa waaj nga war a kontaan kon de ñaanal yàlla ñoom ñoo bisimilah dara bisimilah ñibbiwaat ak bisimilah rek man yàlla defal leen jàmm ki defal réew mi jàmm si président bu es bi ñu koy ñaanal gars yi ni ko yàlla defal jàmm musal ko si seytaane ak seytaane yi ko bu tuur sax wér ñun ñëpp ñu fekkee ko yéen seen liggéey bi yéen leen si yàlla yàggal di ngeen ngi def lu baax ñëpp a ngi koo gis waaye yéen leen yàlla yàggal seen liggéey te ngeen leen farlu bu ànd eh, ak yàggal leen yàggal seen taxawaay te yokk seen place te leen farlu ku dëbb ànd ak wér bu yàlla ci la yàlla mën ko yàlla ko yàlla mu ko def si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf su fi yemoon sax mu ne ñaan yi am na solo jërëjëf yaa te yàlla dina nangu ñaan

waaw ak a seetlu gi nii waaw ah, foofoo neex kontaan naa si sa affaire. waaye waaye ba léegi rek ñu ngi fi si <laughs> man pour yow man tey nga ñëw wala démb nga ñëw. non ah fii laa nekk nag. ah fi nga nekk. Eh, maa waaw ah, naxu loolu naxu loolu. non ma. loo mën nga bëgg a nax nii rek di wax. musuma dem fenn. Casamance rek laa musuma ah, Casamance. Eh, waaye Casamance nee na. Eh, affaire yi affaire yi nii yaa ngi nga jël si si. sponsor. I about to 30 years now, you know. Yeah, but he's been, you know, I mean, them big, you know. And he I mean, um, he's a very, you know, a role model, I mean, you know, this guy is just like, um, he's from a family of about uh, 10 siblings, you know what I mean? You know, why each and every one of these uh, brothers and sisters, I ku ne ku nekk sa doom yi kii la nga loo xam ne dafa am leneen di man daf loolu daf maa indi si dama dee wax ne su nekkutoon ak sa tey it's, it's great, you know. Well, coming over here, like, you know, like uh, semester to understand more than I you know. They go, you know, you get, you get different temperament pattern, you know, to make sure that come you know, you get support family, you know. So, you know, don't like, yow man like fas bi lum daw daw rek nga yokk ko yaar xam nga waaw waaw loolu dëgg la you know fas bi lum daw daw rek am nga yokk ko yaar Ibrahima dafa mel ni flight bi wàcce na semestre yaa ngay ñëw ñu try rek ñu demee foofu nga leen dëgg ak comme ça dem février Absolutely. am yow nga dem tukki ji ñëw sa at sa mbokk yi xam nga gis nga fi yëpp soo seetloo xam nga soo booyee araam di nga gis ne fu nekk yaa ngi xam kii yaa ngi si doomam ñi am na ñoo xam ne cinq minutes gisante wu ñoog seen famille am na ñu nga xamante ne yaa nga ne gisante wu ñoog seen famille soo ñun ñu ne dañ ñëw rek fii nii welcome gaay wax ak ñoom happiness happiness waaw waaw waaw waaw fu mu nekk nii alaaji comme ni ko waxee gaa yaa ngi dañoo position fële rek xaar gaa yi Hello. Hello. How are you? Uh, you don't need anything. <laughs> okay. Ah, ah, Donald camera Mu face. Hello, Hello, welcome. Happy New Year. Hello. How do you feel? um, this is your first time coming to the Gambia? Yes. Um, um, what, which country do you come from? Uh, Belgium. Belgium. How yes. do you feel doing in the Gambia? Uh, good. good? <laughs> yes. How old are you? Uh, I'm 16. Uh, okay, you're going to catch taxi? Yes. Okay, Merry Christmas in advance. Thank you. Happy New Year. Hello. Uh-huh. Wow, thank you very much. Um, like, once again, you fought a bit. This is the Gamba Talents Radio, and of course, this is your the other new show dedicated, of course, for our wonderful, wonderful people coming from the diaspora. Euh, fàttali leen seen euh, programme Semester Avenue bi la euh, su ko defee si lu bañ a yàgg rek plane bi dal na si suuf fi mu nekk ñu ngi séentu ñi nga xam ne ñoo nekk si plane bi di semester ñu génn nag si plane bi ñu rek am ñoo xam dinañ wax ak ñoom du ñàkk ñu rek wax ñu lan lañ fiil Euh, pour rek dal di euh, ñëw euh, si seen réew yi nga xam réew bi nga xam ne moom lañ cosaanoo mu di réewu Gambia bu rafet dinañ tekki bu defee rek dafa mel ni gars yi ko commencé nañ di wàcca si bàyyi waaye ñeneen si ñoom dañ te yaakam ci wata ñu ñun bokk na si hello hello. ba léegi rek gars yi dinañ ñëw this is your first time coming to the Gambia. first <laughs> Uh, married to the Gambian. You married with a Gambian man? Yes. Okay. Oh, he is taking good care of you. now 20 years now. 20 years now? Yes. You have kids? No, we have not. Which no. country do you come from? From Switzerland. From Switzerland? Yes. Um, you love the Gambia? Yes, it's a very nice country. Uh, what is your African dish? Very interesting. Uh, what, which dish do you like most? Which, which, which? I cannot say. Switzerland is also nice with the mountains, and Gambia is very nice for the culture, for the people. That's a very fine thing. Ah, okay, thank you. What's your name? Welcome, Rosemary. Merry Christmas in Thank you. And I wish you the same. Thank you. Thank bye you. Bye. Um, waa kay li ñu leen flight bi wàcc si na Ibrahima flight bi wàcc si na am gaa yaa ngi génn si di ñëw. am soo nii rek la xam nga last time bi ñu ngi xaloon a am ay jafe-jafe waaye try nañ solve nañ jafe-jafe yooyu noonu am right now nii ñu ngi fi nag di nga taseeg ñu nga xamante ne dinañ bëgg a wax Ibrahima nga taseeg ñu nga xamante ne tamit bëgguñoo wax waaye lépp lu mu si mënti defee rek dinañ respect gars yi seen décision duñ fi force kenn ku bëgg a wax rek dinañ la tatagal waxtaan ak yow am tatagal la rek ama Gambie dafa neex Ibrahima tubaab yi sax ñu ko parce que ku ñëw ten yaa ngi Ah, am eh, nga ne 20 years yaa ngi ñëw si Gambia bi ah, di ñëw di ñëw kon am na lu fi nekk ba léegi rek Ibrahima gaa yaa ngi ñëw gaa si kam si semestre yi ñëw nañ ñun semestre lañ ñun sax tey semestre lañ Ibrahima xam naa ne. man moom xaw ma yow waaye man semestre la am ah, suñ caméraman bi sax waaw Babacar moom sax semestre la waaw because moom indi na bagaasam yëpp ñëw na am ba léegi rek am ñu ngi nii rek te airport bi te mu ngi leen ko waxee ñu welcome gars yi yaayaa ngee ñëw dinañ wax ak ñoom Ibrahima am ñu waxtaanaale rek comme ni ma ko waxee Gambie bi dafa neex ñu bari soo gisee mënuñ woon a ñëw Ibrahima lan a taxoon waaw ni nga ko waxee rek lu bëri li waral loolu mooy kump euh, du kumpa si kenn. Hmm. Euh, xam nañ euh, nguur gi fi nekkoon ñu bëri la la génne réew mi ñu bari la tiital dañ génne li nga xam ne moo di réew mi. Hmm. loolu nag du du kumpa si kenn. waaw xam ngeen rek ki fi nekkoon Yahya Jammeh la noonu lay wuyoo xam nga moom affaire am nu demee ñu ñu bëri ñemewuñ ko woon ba sax ñu bëri daal di gàddaay. Euh, génn li nga xam ne moo di réew mi waaye depuis bi nga xamee li nga xam ne moo di nguuram jeex na euh, nemmeeku nañ ne euh, ñu bari ñoo xam ne ñu ngi woon biti réew ñu ngi daal di ñibbisi si rek li nga xam ne moo di jamono yi Ramatoulaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy tontu sa laaj bi nga laaj. Ah, All right, I think we can okay. She's running <laughs> loolu am na solo lool lool lool lool comme ni ma ko dee waxee Gambie dafa ne Gambie suñu réew man saa yu nekk laa ko dee waxee mbokk yi man li maa wax rek képp a ko am kayit nekk foofu noonu trial nga ñëw seet si sa famille si Gambie bi nga chill parce que nee na fi nekk ni Ibrahima Gambie bi right now nii mu ngi mel nii tukki sa bonu saañ wari foo tànn sànni mbaatu nag mu teg am Wally Seck si dëkk bi fii di béggee tey la Wally bi tey la gala bi xam naa ne buñ fa jógee rek ñun dañoo dem rek takk suñ daal eeg ca Wally bi parce que kenn duñu ko nettali Gaye Skatale ngi ñoon ñu taseeg moom def road show ñu baree baree baree am jaaki yo sori ngam di def road show ñu baree baree baree baree artiste bari ñu ngi si Youssou mu ngee ñëw Pape Diouf a ngi fi jógee barki démb Momo Dieng a ngee ñëw Viviane a ngee ñëw kon Gambie bi du romb suñu open mic bi tamit duñ ko fàtte gannaaw open mic bi nekk lu nga xamante ne lu neex a neex la te ñun Gambian Talents ñun lépp luy Gambian di def rek dañ la siy farle dañ la siy fekk si open mic bi dinañ leen ko génne live in direct on of December bu leen ko bu leen ko kenn nettali so hello. hello uncle how are good. Are okay? 10 minutes, okay, so 5 minutes. Okay, no problem. Hello. I'm sorry. Um, um, I have to go. This is your first time coming to the Gambia? No, I'm living here. You live in here? Yes. Anyway, Gambia. Okay. What's the name? Umberto D'Alessandro. Umberto D'Alessandro. Yeah. Which country do you come from? Italy. Italy? Yes. How is Italy? Italy is fine, but... How I'm... are you doing with our boys there? Huh? With our Gambian brothers there? Yeah, I hope they're going to be taken care of. Uh, okay, no problem. Yeah. So you feel good? Yeah. Merry Christmas. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Hi yow mbokk yaa nga rek tey foog waa ñu American nice ko eh, Angale nice ko Italian nice ko xam nga Swedish nice ko Gambie lañ wax Gambie ñoo ko moom xam nga ñun naa xam nga ñun gars yi suñ jógee you know am mi waram seen yooyu noonu ñun dañ foog ñu def you know am mi waram seen parce que gars yi xam nga ñun ñu ngi fi ñun suñ semestre bopp lañ am ba léegi rek xam nga gars yi a ngee ñëw ok am daat bi ñëw na kii nag lañ doon interview famille bi bu yàggit noonu am bu ñëw oncle nga sànni si sa kàddu rek parce que dañ wax si sa dañ waxtaan ak sa famille gars yi kontaan lool am ñu ne yaa ngi fi géej xam nga naka nga fiil ni nga fi géejee very happy uh-huh. uh, yes I feel very happy to be back expect pour gis ga si Gambia bi ah lu ma fi bayoon rek uh, good time uh, good relations hospitality luma must rek la expectat um, lan nga gën a anam si Gambie right now suma family bi sa family bi especially suma best friend okay ah moom namoon na la parce que laajoon naa ko mu ne ma nama naa ko ma have a nice day enjoy yourself I'm nga yàlla yàggal la si family i am Gambie suñu réew la ñoo ko moom del si waat nga sa dika stay blessed have a wonderful vacation or whatever soo ñëwee thank you uncle take be safe live. Okay. Oh, okay. waa mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek ba léegi dina am ñi nga xamante ne am ñoom duñ mun a wax. dina am ñi nga xamante ne ñoom duñ mun a wax. am dafa nekk li nga xamante ne gars yi dañ soona moo koy comme niñ ko waxee flight bi soo si jógee da soona xam nga toog bu yàgg bi transit yi fi leen ne ma wax la nag yaa ñun mosuñu am léegi ah nii waaye na xam nga rek xam nga rek dinañ xam naka la waaw soo suma Gambian brother bi tamit moom tam ah, ñu nekk sécurité ñoom nii xam nga léeg-léeg ñu jàppante nag waaye suñ jàppante ba pare dafa melaat ne rek ñun ñëpp am Gambian lañ ñun ñëpp ñoo fi dëkk moom xam nga Gambia suñu réew la nañ di defante ndànk rek comme ni ma ko dee waxee ku nekk si fànnawu ngaa liggéeyee rek fa nga mun a dimbale seen soo ñu dimbale wante bàyyante xel bu baax a baax a baax am ba léegi rek ñu ngi fii si airport bi maa ngi ànd ak sama naataango ñaari ngéyeen yi la nag moo tax tey fii di yomba am Ramtoulaye Gaye a Gueye man dama ko dee wax xaman Ibrahima mun na loolu waaye man dama naan koo Gueye Ndioro a maam xaasimaa na bu doomi ndeyam ak baayam sëti maamam yaayi baayam man suma ma bëgg a moo fu ma toll ne doomi ndeyam ak baayam sëti maamam waaw nag ñu juree ma si farata yaama xam na farata lañ ko dee waxatee sax waaw Ibrahima yow farata yàlla suna Muhammad waaw moo tax fu ma dama naan doomi ndeyam ak baayam sëti maamam ñu bari nag ñu ngi ma ñee parce que mënu ñoo tagga seen bopp waaye képp a koo noo sant rek nuyu waaw soo mu ne bu dee fay Birame Penda waagaan la ma waxal la ko jufa ñu ko bàyyi yande yooyu noonu bi tey ngaa la xam nga nit noo sant rek man boo ñëwee si man rek parce que si yooyu laay dox man suma maama a yar te dama mun yooyu noonu xam nga gaa yaa ngee ñëw léegi rek gaa yaa ngee seen logee ci hello hello hello yow boo nakam yaa ngi ok yaa gaa leen soona hello hello this big man here okay? You okay? Yes. Welcome. Welcome to Ghana. Thank you. Uh, which country do you come from? Denmark. Denmark. How is Denmark? Oh, it is nice. It's nice little now. cold here today. Uh, oh, a little, little, bit cold now, but not too much. Okay, you want to spend your three, holidays? Three, you want to spend your Christmas in Ghana? Mm, yeah, because I, I, I help people now. You help people around yeah. here. Yeah. Which kind of help do you have? I pay the school. Okay, you give donation? Yes, for school, yes. Okay. How do you feel working with the Gambian community or the society at large? I love it. Coming in my second country. Okay. This is your first time or you? <laughs> no, no, no. My first time I'm down here for uh, 52, three years ago. Oh my God! That yeah, that you were not born this I time. I was not even born. No. Oh, okay. Then you love the Gambia. Then Gambia is. I love it. I love it. And we love you too. Keep Thank on you. coming. Keep on helping our Thank brothers you. and sisters. Have a nice day. Thank, Merry thank Christmas in advance. Uh, and happy New Year. Thank you. Bye. waaw mbokk yi gis ngeen ni ma ko waxee gars yi nag ñoo ñoo ma ne foog ñu neexal leen léegoo léegi xam nga rekk tubaab yi moom ñuy loolu ñu fi ñoom tamit di def liggéey bu am solo léeg-léeg foog ñu delloo leen njukkal léegoo léegi foog nga mere leen nag waaye léegoo léegi Ibrahima foog ñu delloo leen njukkal because gaa yaa ngi def am am solo ñu ngi dimbale ay school ñu ngee dimbale mbokk yi comme li ma doon wax rek am last time bi ñu ngi xaloon am jafe-jafe yooyu noonu xam nga waaye arañ nañ ko parce que ñun ñëpp benn lañ Gambie suñu réew la ñoo ko moom nañ bokk a benn a benn booloo mooy doole ku a jàppale sa ma la fekkee si airport bi nga dimbale ma bu ma fekkee suma liggéeyee kaay ñu yombalal ko rek am bàyyi loolu ah, que addi eh, bi lañ ah, ok am gis naa fi suma beneen problème moom xam naa Ah, no, kimo, kimoño, kimo, no, no, ya te está. Oh, oh, oh, oh. Muy bien, muy bien. Chao. so xam nga ni ma leen ko doon waxee Ibrahima comme luñ doon wax rek yow luy sa kàddu parce que Gambie bi comme ni ko waxee booloo xam nga su ko defee Gambie bi jom ñu change attitude yi xam nga ñu ne change Ibrahima na waaye système bi fi nekkoon ba tey moo fi nekk système change waaw neexut a dégg nag soo ko waxee ñeneen ñi ŋaaña la wala wax la dara waaye nag dañ war a change suñu attitude yi bu ko defee dëkk bi dem nga xam nga ñu bëree bëri koo wax fii ñu bari si airport bi sax soo waxee ñu ne la xam nga mooy loolu ba léegi dañ nit pour change suñ biir Ibrahima ma bàyyi la rek nga sànni si sa kàddu rek ma welcome gars yi. ni nga ko waxee noonu la rek eh, war nañoo soppi li nga xam ni moo di. jikko yi réew mi eh, mun a jëm si kanam su ko defee nañ dalal. Eh, suñu oncle bi oncle kaw wala jarama la no on tay mo moɗaɗi no min ko min kam do ah ok honto ah, ok <laughs> ko honto e mori ma ko yo ma e wo o riga o wayriga sen o wayriga sa riga ok ok ok ibrahima daniela moño okay how are you okay yeah i'm okay which country do you come from i'm from denmark come from Denmark. Yeah. Uh, welcome back home. Thank you. For how long you have been here? Uh, only a year. What's your last year? Okay. okay. And then coming to the Gambia? Yeah, I do. What do you like most in the Gambia? Um, what is, I don't know. Like the peace that I can relax and just. Yeah. For how long are you gonna stay? For three weeks only. For three weeks, yeah, that's small. I'm gonna miss yeah. you. I'm already missing <laughs> <laughs> you. okay. Who did you Who did you miss most? yeah, yeah, yeah. I don't know. This, I mean, not your dad? One. Not your no, dad? This is not my dad. Uh, okay. My dad's really good friend. Uh, okay, okay. All right, Daniela. Thank you. Mm, <laughs> all right. Jarama. You you jaje fal ko wa Wow, guys, guys, gaay romba gan yi ñu ne ci ñoom nak <laughs> waaw ñu ñu ñu wax waaw benn five minutes rek mais ñu benn five minutes rek benn five minutes rek euh, euh, suñ suñ suñ suñ anti bi ñu nuyu la euh, anti naka nga dem tur bi naka la fan nga jógee ban ban réew nga jógee Hamburg nga jógee Germany kañ nga fi géej um, last rek last year nga fi ok defoon nga ñëwoon mu neex rek ma del ci waat ok da nga ñëwoon pour nemmeeku ji famille pour nemmeeku famille bi ak ñu ak Christmas Christmas bi yëpp am nga mbégte lool pour ñibbi si waat sa sa réew bi nga soxee ko. a baax a baax jërëjëf jërëjëf jaajëfal ko. waaw <laughs> yi léegi waaye man maa ngi ñëw nga indi ma fii laa nekk. ah man nag man nag kay dama yàgg a fi. <laughs> two weeks. Ah, waaw ba tey rek. ya two um, weeks. this is Semester Avenue. I know, I know, I know. Can we take five minutes of your time, ah, please? No, we are supposed to, okay. Ah. Okay. How do you feel? Not gonna feel. Um, um, this so you go to the um, semester available. Um, baro mune naka semester ida ni na delo duka. Ya ngegis. Nun tam ñu ne Gambian talent fo ñu delo semester yi duka. Ñu welcome back leen ñu ci airport bi fini. Welcome semester yi wax ak yeen. Xam nga nak na, naka ngeen fi parce que am na na yow mom nga um, gëjoon nga fi wala yaa ngi doon ñëw am na yi nga xam nga nañu ñu yaay leen ñeneen amul ñu nga am rek how do you feel uh, I don't really know but Now it's different. I can see that many people are here this year. Mm -hmm. It's because of the new government that everyone's coming home. Mm -hmm. That's very, it's very nice everyone to be home and uh, I know everyone is happy too to see their families that hasn't been here a long time. That's something to be to be proud of. Yeah, um, um, eleven years. eleven years ñëw loo Gambia. No, I've been Gambia every year. Ah, every year nga I have no political problem. ah ok so I come every year. lan girl, more like la gën a neex Gambia bi still you keep on coming every year. Hmm? because I have my parents I have my friends it's my culture tradition I was born here of course I have to come every year. naka nga plané for Christmas you with your wife kids or naka. With my family. With your family. Mm. Okay, um, thank you very much. I have to go uh, now. Have a nice day. Merry uh. Christmas in advance. Okay. waaw ba léegi rek I'm going to naataangoo ngi nii Airport I'm si Loum si seen programme am even yi nga xam ne ñoom it ñu ngi jógee ko si réewu tugal yi dinañ euh, waxtaan ak ñoom ñu wax ñu euh, lan a tax ñu soppal lool li nga xam ne moo di réew bi di réewu Gambia ba tax ñuy fé faral bi ñu bay ñu bari ci ñom dañ fi dee ñëw ay ati at euh, dégg ngeen amna ko xamni xam ne ramatullah wax na ak mom mu né mom depuis ñaar fukki at ak euh, juroom juróom fukki at ak euh, juróom fukki at ak lu teg you know mu ngi mu ngi ñëw ci ci ci réew bi di Gambia mu melni mom moom na fi ñëw te jamm ak salam la fi némé ko su ko défé rek ko rek jéem a waxtaan ak suñ oncle bi moom it sama onkul bi ni Wow. no, I'm here. You here? Okay. No, oh, you. are local. <laughs> okay. So, then Mudan Jajan. Balaja. So, you come from? Uh, from Norway. From Norway. This is your first time coming no, I'm just picking up my parents. I've You're been here 10 years. your parents? you love it here? Hello, Mr. and Mrs. Um, you okay? Yeah, we're fine. Oh, how do you feel? Uh, I can good. see you feel tired. Yeah, I'm um, tired. Do you have transit or oh, that's why you feel tired? Yes, yes. Okay, how do you feel? <laughs> Sorry? I uh, said, how do you feel? Gambia is nice. Gambia I like Gambia. Nice. This is your first time or you were oh, coming? my fourth time. Your first time. Yeah. And uh, what do you expect to see here? Uh, my family, my, my daughter. Okay, your Sorry. daughter. Thank you. Um, this is Semesters event. yaa life and direct Gambian Talents Promotion am ñëw rek the welcome semester yi waxtaan ak ñoom laaj leen kañ six years. six years. Wow. six years Very bariwul naa waajal a daax yow wala te loolu dafa nekk rek ne géej am rek. waaw six years ñëw loo Gambia. waaw xam la sa this time nga decide rek pour ñëw. dama ñëw pour seet ñu government bi ñoo wax rek lan na fi eh, change ak gon suñu liggéey la la ñoo def fii. parce que kontaan rek si change of government bi. Hmm. mu waral rek pour ma ñëw try pour ñëw holiday seet lu fi xew ak yooyu su neexee ñu ñëwaat. sa famille fële lañ nekk wala sa doom wala sa jabar suma suma doom ak suma yaay yëpp Norway lañ nekk nit Norway laa jógee mm. so yéen yéen ñëwandoor nii déedéet man kee naa ñëw parce que dama ñëw ñu ko ñëw seet mu mel wala ma suma famille itam door di ñëw um, no intérêt pour spend sa holidays bi waaw parce que dañ ñëw pour affaire yi diaspora bi mm-hmm. because of dañ bugg a ñëw pour liggéey mm-hmm. tamit dimbale affaire yi health bi ak yooyu noonu loolu days yoo xam ne programme boo xam ne xaalis bu ñu am bu fi des dañ ko fee bàyyi si dëkk bi mu dem si Royal Victoria Hospital pour lu ñëw dimbale dëkk bi loolu ta ñuy ñëw pour euh, dimbale am loolu nekk lu am am solo comme ni nga ko waxee diaspora ba fii di am um, this month sax Barrow daf ko jagleel diaspora bi di ba on the 15 of décembre ba on of novembre mu ne daf ko jox yéen rek yéen ñi nga xamante ne dañ leen war a delloo jukkal ngeen nekk fële nag am um, tukki jom la waaye ñibbisi tamit fula la sa ka soo ñibbisee nga investi sa réew dimbale sa waa réew mm. ngeen am fële ko fii bokk ko seen yu bare bari yéen ko amee na naa congrats loolu di leen wax rek moo nekk rek bi man health bi moom laa gën a because of health dafa important mm. because of léegi-léegi am na loo xam ne dinga ko mën a cure boo xam ne nit ki xëy na dee moom yàlla moo mm-hmm. waaye am na yenn feebar yoo xam ne soo nit ki dina mun a wér mm-hmm. waaye health bi dañ fiil ne dañ si need moo xel mm-hmm. ba pare ak wasin wasinookaay bi tamit niit nañ xel pour jigéen yi ñuy leen a jox a very comfort boo xam ne pour jigéen yi su ñooy wasin ñuy nanka nanka ñoom jox leen liñ bugga di leen di bàyyi góor yi ñi tam ñoom it hmm. ñuy participer pour loo xam ne tam ñu gis coono jigéen ñi. Hmm. not all the time rek ñuy génnee góor yi borloo bokk ci lii borloo bokk ci lii. ñi toppatoo seen jabar yi su dee aussi ñu àgg si lopitaan bi di gis seen coono. man daal affaire yi health bi daal am na am na si solo lool trop si man. ambiance bi nekk si fii yëg nga ko. déedéet. ma yëguloo ko ni ma la gisee xam naa ne tey soo gisee nga bokk bi yaa ca galaba ca Wally Seck ba. na ma dem dafa des si coono yaram bi man ma a dem waaye dama xaw a sonn nag parce que dama liggéey bi sonn ba si last day bi maa ñëw. looloo tax naa gisoo ma ne dinaa mën a dem. welcome back have a nice day. ba pare tam ñu dimbale yoon te si amul liggéey tam ñu jox leen liggéey tamit daf dee métti pour ñoom tam ak yooyu. loolu tam man loolu am na si solo. ñoo ku ko dëkk fii si Gambia. kër gi sumaal. coordinated. ah originally Norway. Norway Gambian. waaw Norwegian citizen la. ok. 30 years léegi. 30 years that's too much. waaw yàgg naa génn Gambie No, no, kon yow di ma invite foofu parce que man right now nii dem rek laa bëgg. waaw baax na yàlla dina no, yóbbu. ah naka nga tudd Seynabou Thiam No, no, no, no. waaw non non non suma broda yi foog ma wax. thank you thank you thank you Seynabou. ok thank you moom gaayam yaa ko jël si woon. so waaye ñoom bëgg ñoo wax ak ñun. soo Seynabou ba léegi rek yow ma bàyyi la parce que yaa ngi sonal. it's okay it's okay parce que I'm very happy about this. have a nice day. you too thank you. Merry Christmas in advance. bank kii mooy borom Facebook bu ko xamul ko leen ko xamul ma leen ko mooy def yu baax a baax yooyu Facebook daal a yeeg baag yeeg te duma ko mën a fekk si airport bi yow ku la gis wax ak yow ño la indi Gambie yow daal yaa si rek di toog ginnaaw rek waaw dama ñëw Gambie pour bégal waa Gambia loolu laa gis naka nga def mais yow yaa ma teeru ci gàmm yow nii yow. teeru nii te nii laa la teeroo gis nga ni ma def caméraman jël ma nii rek laa la def sama suuf. yow xanaa yaay riigu riigu yow. ah maa riigu riigu. ah riigu riigu waay ah, man nii laa la teeroo. man waaw ñii xale nañ fa nekk. ma xool ana xaali mbay ana xaali xaali ñëw leen ñëw leen xaali dogo ah. ndey si yaa ngi ñun ah, ko nangu ñun Gambie nangu ah. ah, ñun baro yi ñamal ñu fi ay ma ne ñun duñ nangu loolu. Sénégal ak Gambie benn président la. non am nekkul benn président. Adama Barrow moom ñu ma tey amee Sénégalais bu leen ci eh, àdduna ma ne non non Adama Barrow yow nag. Adama Barrow ah, ah, ah. mooy seefam. koo bëgg a bigop. Hmm? koo bëgg a bigop bigop ñëpp rek bigop sama gars yi ñoom Diakha Doucouré ñoom Thiabi Sarr. ñoom uh-huh. princesse Betty Ndiaye. Uh-huh. ah maa ngi bigop people Gambia Gambia people ak waa association Gambien bi nekk Atlanta Jojo. tey tey loo leen nar a fas yéene. non tey tey daal dana mel ni ba Yoro Jaay nag ba ne génn du dem. ah fii toj na mbokk yi ni ma leen ko waxee welcome moom lañ. am ñëw nag welcome baani waali bi wax ak ñooñu. Um, hello. Nice sister, sister, good night. Sister, good night sky. Sister, yow da nga <laughs> ok mbokk yi ni leen ko defee ñu ngi wax ak um, noonu kooku noonu di. mu um, lii Wally Seck uh, tëggkati Wally Seck yaa nekk noonu ñun baan bi dañ waxoon ak ñoom keroog bi Wally di ñëw mooy loolu dañ wax ñoom tey ñoom ñu ngi nii soog a ñëw tey nag dara du fi yomb gis ngeen ko baan Wally Seck baa nekk ñoom ñoom jibi mbéyang fa ñoom xaadimang fa ñoom gaayang fa so ñu ñëw rek nag bëgg a wax ak ñoom mbay si laa doon wax am wax gaay rek dara du yomb fii nii Gambie suñu réew lañ wax am sama caméraman bi tamit dama ko big up baam big up baale waaye airport bi tamit si liggéey bu rafet bu ñu def mais ñu ubbil ñu bunta yi amoon nañ fi difficultés nag waaye satul nañ ko parce que Gambie ñun ñëpp a bokk ñun ñëpp a ko moom Gambie suñu réew la nañ liggéey nañ what if they lépp nice lépp lii gaya yaa ngi ñëw ba léegi rek vraiment gars yaa ngi ñëw ma wax ak kii waaw so, so, saw saw saw you <laughs> guys yeah, what's up? you okay man bu ma fi whatsapp ak yooyu nañ laaj I'm not, let's speak English please. no let's speak Mandinka all over yeah Mandinka how Mandinka okay you speak Mandinka how are you mbakule mbakay um Abenyari, uh, abenyani mbakay rofa no to du madu mari tuba mari tuba nde mbata kandongule fonyi oh, um yes, include all to. Okay. And I could be a to, but sometimes you know, can stay in Kama and in Bundu. Okay, so you can put them into science, right? Science and I want to UN, you know, Okay, so you're not a much book this spend? Uh, not really, just um, a winter break, just two two weeks break, right? Two week break? Yeah. Um, uh, eh, eh, nakanga ko spend iba eh, spend la nyadi ah yeah okay just to visit family and friends uh -huh. that's my purpose of visit i uh-huh. just want to see family friends and loved ones that's it. Just to mingle with them because um, I've missed them uh, so much. That's nice. Yeah. Um, Merry Christmas in advance and a Happy New Year. You too. Stay blessed and stay sound. Bye. See you. Hi. Wow, American. If you speak American, I'm gonna speak American. Okay. Huh? Um, ma jox rek sama naataango bi waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf kooku mooy Ramatulaay Euh, mu doon def lu am solo partenaire bi seen programme yi euh, Semestas Avenue bi la ñu ngi fii ba léegi si Banjul International Airport di waxa euh, Semestas yi waaye rek amuñ bi waxa Semestas yi rek ñu ngay waxtaan ak ñeneen ñoo xam ne tamit sax ay Semestas waaye ay rek touriste la ñoom it ñëw si biir li nga xam ne moo di réewu Gambia pour am amal ci ay mbir yu am solo ndax su ko defee rek dañuy ñoo xam ne daal ñu ngi. according to li nga xam ne moo di play mi dañu wax ñu euh, lan lañ yëg si rek li nga xam ne moo di euh, jamono ji Euh, su ko defee ba léegi rek euh, euh, mbir mee ngi xal liw fi mu nekk ni si si biti lañ nekk waaye ba léegi ñu ngi xaaral yi rek ndax du gan yokkoo génn si dafa mel ni rek waa ñu bokk nañ ci ñi nga xam ne bokk nañ si si si bi nga xam ne wàcce na léegi xam ngeen ne ni ki tey nga xam ne mooy Wally Ballago Seck mu ngi fi war a amal benn concert bu rëy fii si biir li nga xam ne moo di réew mi loolu yëpp nag euh, mu bokk rek si euh, li nga xam daal moo di màggal euh, li nga xam daal moo di Christmas ak rek Euh, at ni nga xam ne moom la ñu dëgmal si mu ngi atum 2018 ba léegi rek euh, ñu ngi fii ni ma ko waxee si Banjul International Airport ba léegi ñu ngi xaar rek euh, pour rek ñi nga xam ne ñoo wàcca jógee ko si plane wala flight bi nga xam ne moo dal léegi ñu waxtaan ak ñoom ñu wax ñu ana lan lañ fiil pour rek ñenn si ñoom nga xam ne gis nañ fi wax ñu lan lañ fiil si rek dellu si waat si seen réew

19 years ago. Since then, you have uh, not been coming to Zambia. Also, I'm uh, coming every two years. Okay, how do you feel coming back to this time? Wow, can you in? Thank you. <laughs> Thank you very much. Uh, he was Damula. Yeah, yeah, yeah. su uh, Euh, waaw ñu bàyyi Ramatulaay waaw mbokk yi comme ni ma ba léegi rek ñu ngi welcome back fifth semester welcome back ok welcome back welcome back how you okay am ba léegi rek ñu ngi welcome back suñu semester yi comme ni ma leen ko waxee fukki fula la waaye ñu di si jom la gaa yaa ngi ñëw gaa Hello. Makanyende. Orang dia okay. Uh, you just come orang yang nyawan welcome sini. Iya, orang nyawan jel sini. Ah, ada nyawan jel sini. Kan ada nyawan jel sini. Okay. Ya, saya bawa. Ah, ya. Hello. Ich möchte aber kein Foto. Wala mo sono mer. Wala mo sono. All right. Yung nyari kado. Wow. Am juga sekarang nggak ganyo fini si airport bi. Okay. Am jel si si sen kaba. Wow. Am nakanga feel. feel okay because like before like come like things change and what is a Time like we have a lot of changes here. So appreciate that all because you guys you really stress to get that come they can very absolute airport. Okay, that's nice. Merry Christmas. Welcome. Welcome. Hello. How are you? Okay. Oh, she does not speak English. She does not speak French. She speaks French. French. Bonjour? Yes. Oh, okay. Comment ça s'appelle? Euh, Combien? je vais bien. Ah, merci. En ah, Gambie. à à la maison. everything okay. Um, be at home, okay? Um, Merry Christmas in advance Happy New Year. Elle te dit euh, Noël bonne année à l'avance. ok. Ah. Ah, ok. Thank you. Thank you. Hello, thank you. Thank you. Qua có cái nhân nghiệp đó. Swedish, French. Có nhà này có đâu. Đó, speak your life speak. I'll speak everything. They know I need Um, they don't want to talk to us. They don't want them. Kini na Afrika. So, soo bëggee wax ñu wax ak yow soo fii loolu la xam nga ñii dinañ bëgg a wax comme ni ma leen ko waxee woon ñii duñ mën a bëgg a wax parce que nekkul ne ñu bare ñi may caméra bi comme Ramatulaay wala comme Ibrahima am nga caméra bi pour nga taxaw fi da war a xam nga ñime waaye nekkul ne a fi ñime waa tey ñun am ñooñu suñ oncle yu baax a baax yi lañ waaw ñëw nañ suñ oncle yu baax a baax yi lañ ñëw nañ semestre yi comme ni ma leen ko waxee waaye nag dafa sakkan gaa ngi ñëw léegi nii xam nga seen ah, seen Bruxelles lañ wax am te sa big one big flight ñii jógee Germany ñii fu nekk xam nga easy wut am ñu wax ak gaa yi rek yéen a ngi ok ah ok sa mag tam ñëw da ñëw uh-huh. No, no, no. No, no, I, I just came to, to pick up somebody, somebody, but unfortunately... Do not make the yeah, flight. Yeah, um, how do you feel? Um, kind of no, no, he's uh, honorable member. Okay. Uh, for Janyambure. Honorable member for Janyambure. Yeah. Dafa génn. Waaw dañ meeting, EU meeting to Haiti. Okay. Yeah. Um, he, he's meeting with Haiti. I'm going. unfortunately I knew. No, so we just learned that they are coming tomorrow. Okay, you are like a Gare Gambian Salon promotion. Okay. Yeah, it's Amestas Avenue B, where we welcome our Salon talk to them how them uh, ask them how do they feel coming to the Gambia coming back home xam you ñu going to sax ñu ci sa anything you want to say well it's a pleasure to talk to your is it media huh? media okay okay hello okay, okay. It's, a pleasure okay okay can I have 10 minutes of your time huh? Can I have 10 minutes of yes, your time? Yes, you can have it. Mana yaa ngi soona. Ah, waaw maa ngi soona welcome back. ah maam um, um, yaa and ok <laughs> welcome rek this is. waaw jërëjëf waaw waaw this is semester avenue. dëgg la welcome semester. déedéet man du ma semester de. ah waaw ok thank you have a nice day.

ok mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek ba léegi rek ñu ngi ci airport bi fii ñu ngi welcome gan xam nga rek ñii di leen bëgg a wax wax naa leen ko ñii duñ bëgg a wax waaye nag ku bëgg wax ak ku bëggut a wax yëpp yi sol di seen parce que am na ñi nga xam ne tamit ñu ngi wax nekku na ñëpp a ñemee caméra bi comme Ramatullah wala comme Ibrahima so waaye nag we we we having fun here at the airport Ibrahima ma nga ñëw rek sànni ci ay kaddu. jërëjëf euh, Ramatoulaye liggéey bi am na solo lool ni nga ko waxee rek noonu la du ñëpp a dee euh, bugg a wax si euh, kanam yi li nga xam ne moo di caméra bi loolu is a is boo xam ne dañ ko dee faral di jànkuwanteel si suñu liggéey waaye noonu la foog rek ñu ànd ak li nga xam ne moo di dal su ko defee ñi bugg a wax ak ñun ñu wax ak ñoom ñi nga xam ne tamit bugg ñëw wax ak ñun. rek bàyyi leen ñenn si ñoom xëj na dañ dee bugg a waaye duñ dee am time bi waaye lu si mun di lu si mun di am rek ñu ngi fii ba léegi si Banjul International Airport ba léegi ñi nga xam ne ñooy rek nekkoon si rek flight bi wàcce léegi ñu ngi génn si benn benn ba léegi soo seetee si li nga xam ne moo di xool bi fële ba léegi ñi nga xam ne ñoo ñoo ñëw pour welcome si seen i ay mbokk ba léegi ñu ngi taxaw di xaar pour yéen seen yéen seen mbokk si si pour rek ñi nga xam ne ñoo des euh, ñu génn si euh, ba léegi rek euh, ni ko Ramatulaay waxee programme bi programme bu am solo la ñu tuddee ko rek li nga xam ne moo di Semesters Avenue jagleel ko li nga xam ne daal moo di semestre yi waaye mbir mi ni ma ko waxee dañ ko yaatal dinañ wax ak sax ñi nga xam ne ñoo di touristes yi wax leen lanay seen teewaay fii si biir li nga xam ne moo di réewu Gambie Ramatulaay waaw Ibrahima loolu am na solo lool lool mbokk yi Semesters Avenue Semesters Avenue ñun sax ñun semestre lañ parce que ñun ñooy dalal semestre yi di waxtaan ak gars yi xam nga rek ñuma leen ko waxee tukki jom la way ñibbi si fula la semestre yi dañ nit ñu delloo leen jugal semestre yi ñu ngi def lu am am solo fi si réew Gambia lu bari bari lu baax lu nekk ñoko ko def comme niko fi sista bobu waxee léegi léegi ni seyna sëy na bu jógee foofu sa ñowé wax le le le ñom dañ fi ñëw pour jappalé Gambien ni dañ fi ñëw pour def lu bari bari semestre yëpp suñ defee lool loolu am na solo lool lool lool lool lool ba léegi rek ñu ngi fii si airport comme ma leen ko waxee di leen delloo njugal di leen wane fu nekk nii nag Gambie bi fu mu nekk nii moom mu ngee toj mu ngee neex fi mu nekk nii gis ngeen ko right right now nii ah, ba baani Wally Seck baa ngi noonu ñoom mbay si ñoom jibi mbay gaa yaa ngi noonu xam nga ñëw yaa ngi gis affaire bi dina neex ñëpp a ngi si dëkk bi wax naa leen ne Youssou ngee ñëw keneen nag keneen a ngee ñëw yaa a ngee ñëw ñeneen yaa ngee ñëw suñ open maa bi bu leen ko fàtte on the 29 um, of December dina toj fële sa Independence Stadium bi comme niñ leen ko dee defalee saa yi nekk rek ambiance bi foofu dina nekk jël ambiance bi waxtaan ak gars yi toj fa hello welcome back home hello welcome back thank you how are you fine thank you what's your nice name Excuse me? What's your name? Catherine. Catherine, I like you. Yeah, but I have to go oh, because they're waiting for me. Okay, okay, no problem. Have a nice day. Yeah, thank Merry you. Christmas in advance. Yeah, you Happy too. New Year. Okay, bye-bye. Okay. comme li ma nga waxee rek gis ngeen gars yi dañ dee soona nag doo leen fileem suñ jógee si flight bi dañ dee soona soona soona soo fiw rek nga mun a wax ak ñoom niti ambiance xam nga foog nga wax ak gars yi ñooñu soo xam nga man ñooñu laay wër am ñii nag ñoom tamit jël si nañ seen boot comme ñeneen yaa ngi jël si woon seen boot am seen boot jël si nañ ñoom tamit mu ngi ñëw mu nekk lu am am solo am yi noo waram seen am yéen seen boot egsi na egsi ngul egsi ngul xam naa dañoo xaar second flight ok xaar leen second flight bi den dina ñëw léegi tey so Ibrahima dafa mel ni léegi tey wateef bi egga si ndong li am like ñeneen ñi flight bi dafa mel ni am ya, jeex na already soo ñeneen ñi gisuñ seen nit hello naa def yaa ngi ok welcome back am boy bi lan la da nga xala sooj waaw da sorry sorry sorry am ma welcome back yaa ñu lay santaare Gambian Style promotion yaa ñu ngi seetaan semester avenue semester avenue nag soo ko déggee story dañoo welcome back semester yi waxtaan ak ñoom takadal leen fii si suñu parce que semester yi nit indeed fu leen baroo the president of the bii daf ko njukkalee moon bi from on the 15 of December to on the 15 of January daf ko njukkalee let's say semester yi uh-huh. am ñu ngeen naa def lu am am solo si Gambia ñun tam ñu ne why not we come Gambian talent parce que ñun askan baa ñu ñor ñu ñëw rek welcome leen dafa génn yu baax suñ fa paree fekk si leen seen kër naka nga fiil sant naka nga tudda man maa ngi tudda Malick Seck Bams. Bams. Bams yow fan nga jógee. Banjul jëm Sénégal. Banjul jëm Sénégal yi sama mbokk yi Banjul Banjul ah, um, <laughs> ah, man na duma fi géej nag waaye géej naa fi bu ma génnee Gambia léegi is for the past thirty years. thirty moom tey si waaye ñoom ñu uh, woon already. Um, Ah, moom tamit mu nga fan fan nga nekk ngi Belgium ngi Belgium naka nga gisal ñu Gambie bi waaw sant yàlla alhamdulilah ñu gën ñaan yàlla rek affaire yi yëpp gën a cool mm-hmm. waaye di taraay wookaaw jëfi courant bi waaw because courant bi dafa da nga da nga da nga wala da nga da nga ñëw rek Christmas beeg yooyu noonu non maa fi fi allah te maa fi ah. since octobre suma jabar dafa ah, sorry sorry wa non la aduna non la dund ak dee moo fi nekk ay ñu ñaanal aji jiitu rek yàlla xara leen rek waaw xale la bàyyi ko aduna amul solo yàlla xara leen àjjana rek te yéexe ñu ñun ñu fi nekk ngeen di ne ñaanal loolu am solo loolu nga toppatoo njaboot yi di la wax ne neexul nag waaye waaye ngeen gën a taraay di góorgóorlu ah welcome ba hello ma wax ak moom uh. hello How do you feel senior? your dad? You're looking great. Hmm? <laughs> Eh, ah ok <laughs> waaye yi gis ngeen ko jërëjëf ah. <laughs> Pam ma kontaan seen kooku di waa Jëm Sénégal comme ni mu leen ko waxee rek mbokk yi am Semester Avenue wax right now nii moom foog naa Ibrahima da ngaa ñëw rek ñu rapo parce que flight bi already jeex na beneen flight bi moo war ñëw ñeneen ñi xaar nañ seen mbokk ñu ñuy ñëw ñëw nañ ñeneen ñi ñëwuñ Ibrahima li am am solo rek ma bëgg nga sànni si sa kàddu. Eh, wa rahmatulaay wax nga lu am solo ni nga ko waxee rek te faral di wax lu nuyoo rek faaw rek mu tàggatoo lu duuf si nag li xëjut rek eh, tàggatoo eh, waaye mbir mi du em fii avenue si kanam di waxal li nga xam ne moo di di di di jaajëfal ñi nga xam ne jot nañoo wax ak ñoom ñu wax rek dellu si waat euh, si seen réew fii si Gambie kon donc Euh, jox leen dox daje ba beneen jëmmi jamono jërë ngeen waaw loolu am na solo lool lool lool comme ni ko Ibrahima waxee seen xarit Gaye Ndioro ñambeeg maam xaasi maag seenam tey nag dama xaajaan parce que semestre la léegi laa wàcca <laughs> si seen flight bi seen ah, seen Bruxelles bi moom indiwaale comme nuñ ko waxee rek li dif su nag yu xajut si cin dañ koo xaaj paajoo ko am def ko ay dog su ko defee ñu koo def si cin li am nag du fi am bi mooy second épisode bi fi nekk nii nag nag suñ welcome gars yi ba gars yi ñëw dinañ dem fekk ji gars yi seen kër yi ku si nekk def ak ñoom taraanga semestre buy seetaan wala kuy waaj a ñëw am jëlal suñ daayal wala nga email ñu dinañ la fekk si ba sa kër def ak yow yu baax ànd ak suñ ñaari tama nag ak suñ benn bongo maan ñëw rek def ak yow ambiance gunge la ba pare ku nga xamante ne sax yaa ngi bëgg a touriste guide wala nit man mën naa laa gunge rek def ak yow lu baax dalal la Gambie di la wan ne bi ñun dañ happy Gambie jàmmal lañ xam suñu réew. jàmm la xam yéen a fi jàmm sax yéen nañu yàlla may yu bëree bari affaire bi. obeku government bi liggey comme ñu leen expédié gaay def ko ñu tek ci yoon rek defante ndank Gambia suñu rew la té bolo moy doole ah, ben momun mun ñaar ah, ñaar momun ben tay ñaar maam ñaar mom ñeta momun ñaar ngeen def noonu rek suko defé ñu liggey suñu Gambia suñu rew Gambia ya na Semesters Avenue ma saraw everybody képp kuy sétane ngey ndioro love one dé ma dama dox rek Ibrahima Westfield tassé ak ben maire bu nga Fab Diop la tudda Angleterre la jógee gis ma rek ñàpp suma koo ne ma suma fans ma ne ko tey ma saraut la fii nii ci sama live bi nekk live and direct Semester Avenue di ko may semester yu ñëw yu fi jaar keroog si Wednesday bi ak tey yéen ñëpp may naa leen ko ak ñu ñoo seetaan lépp luñ fi wax lu ñaaw rek si ñun la luñ fi wax lu rafet rek am luñ fi wax lu rafet si yàlla la nag ngeen ñu jéggal ñu ñu jéggalaate jéggal nañ ñu àdduna yàggut te àdduna amul solo ambiance lañ wax happy new year merry christmas in advance to everyone gay njoro love you ibrahima love you Babacar di ko Saraw suñu caméraman boobu noonu nga xamante ne moo nekk gannaaw caméra bi gis ngeen ko keroog dañu amoon ay difficultés le tey le a leer lépp sound Babacar ma ko big up foofu noonu Gambian Talent Promotion nag askan bee ñu ñor lépp loo leen bugg rek any service Gambian Talent dinañ leen ko defal flyers yaa nga foofu noonu soo leen buggee birthday t-shirt soo leen buggee kaas soo leen buggee wedding cards lepp lu len buga rek Gambian challenge dinañ ngeen ko defaral ñun ci yob lañu ñoo yëngu seen xarit la nak borom Tambambalu show bi ele ngeen kal ko fa nak ma indi len lu ama am solo si tamba Tambambalu show bi rek kepp ku buga ma indi la tamit mun nga email wala nga dal suñ nombay rek dina la indi ci show bi ni Semesters Avenue dox len dig daje ba ay yeneeni i yu ay ciro ngeen jëf Thank you. うん